sa mission ba pare di nga di dem du dem génn yoof mais dina jafe ci yoof alors 1558 la ñew yoof ba 1748 ci la xaré jambor am booba jambor muy damel jambor nak li tax mu tudd jàmboor moo di xareb jàmboor ka ñëwoon attaqué muy le général général mom la kajoor di wax jambor bo falo damel da ngay fal sa homme de confiance boo xam ne moo nga jox sa armée le chef d'armée moom la ñu tuddee jàmboor Sala Bigué nag moo Bigué Ngoné ñoo bokk ndey ak bàyyi alors Sala Bigué ak Maysa Bigué ñoo bokk ndey ak bàyyi wala ñu bokk ba ñoo benn ndey